bu mag bi gaay yi jub si ko jot na sëkk ndax moom yegg si na sëriñ bu mag bi gaay yi jub si na ko jot lool ba dañ waaye dañ koy am ba noppi dem di ko wuti ci ngërëmu yàlla kon ngërëmu yàlla dafa gën a jafe ngërëmu yàlla yombul de boo koy wut sa xol dara luy lu lay naqari bi ca ne doo yéene kenn ab sabaan lu lu lu sëñ bi joxe bu doon lu baax da nga naan man bu ma ko amul bu ko sama mbokk daal bi amee am naa muy joxe noonu lu sëñ bi joxe yaa ko jëkk am waaye bu jàpp ne lu baax lu ne ci yow rek la war a ko ko woon dëgg boo leen mënee dëgg rek ñu ne dafa ñàkk kersa wala dafa ñàkk teggin wala amul yàlla ñoom nag yàlla dimbali na leen ba ful la te diir bi ñu tàmbalee liggéey bi ma léegi ndax dañoo fekk koo xam ne nii kat ndax ah, loxoom daa jotul ginnaawam borom këram wàcc doomam tollu diggante ñu hospitalisé ko ñoom ñu ñu taxaw ko taxawaay bu mën sëkk ci hôpital ba nga xam ne lépp dañ koo def ci sa bi ma ko waxee ma bëgg ci lool ndax ñoom lañ ma waxoon ba ñuy tàmbali boobu léegi ci lool rek lañ nekk mhm. seen jëriñ bi Moustapha mi ngi itali waaye saa bu ne ci liggéey bi rek lay dox ñoom dañoo taxaw daal di dimbali ñi nga xam ne tey seen loxo jotul seen ginnaaw di ko jëfee nag ci sa tur ànd nag boo ñooy Gracias. Les mots gendarmes, c'est Les mots gendarmes, c'est amiin bu mag bi gaay yi na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegg na bisub sëriñ bu mag bi gaay yi na waajal ko